kulli nafsin sayihatal lay mawti wali wali hmm? kulli nafsin sayihatal lay <laughs> mawti yooyu yow yow lii alxuraan la wala sima soo ma fekkee ma toog doo ma naan xujju toog di ma xool rek papa asalaamualeykum walla bul wax ak moom asalaamu xabla kalaam caxas dafa am loo mu abaloon mu dox suñu diggante mu buggoon rak nga may ma temps tuuti ma gën a lijjanti xaalis bi may jox la ndax Mbacké Diouf nee na dina ñëw Cheikh Diouf sama suñu Sénégal te ma nee na dina ñëw papa fayoon naar bi xoromam nag ban naar moo ma lebaloon xorom man <laughs> yow yaa <laughs> Euh, doom yi neex la am nag <laughs> nee na lebaloo fayoo <laughs> loo lebal sa baay. man nag li may xaar ni mënut a àgg foofu de kaaw bilaa ginnaaw ay jàmm waaye ginnaaw jàmm ay parce que fi ne nii bu bu lu neex amee bu subaa bu lu naqari amaatee dañuy xam ne noonu la àdduna tëree yaa ngi man nag du ma kaf du ma xaaj ko xaalis koy laaj boo bu sa kanam ga jafee duñ la jox. waaye taxaw ma doom moo tax bu fekkante ne nii maa ngi fii. sa papa bi muy seetal seetam bi lu nekk dem nga ko si seet bi lu nekk dem nga ko man mënuloo si man mën nga si sa papa cinq cent mille un million mënoo si man cent mille par an abalaay waaw yow xeexal naa la lu nekk xeex naa lu nekk waaye dara nga mo bëggoon xam mhm. nga yow sama xarit nga te gis nga genn jabu bi mhm. bëgguma kenn xam ne ci man la joggé bëgguma kenn xam ko ah. wa légui na nag dama lay war pour ñu waxtaan ndax yow xam nga man xam waaw légui na dama dama dañuy waxtaan rek ndax xam nga tay waaw dërëm melna na ci mom no xamanteni ni su xamé né man mi ma tax jabu genn kër gi samay ak samay bagage tax mu genn fi jaral na ko mu jël paaka rendi ma loolu daal laa lay ñaan yow xam nga man xam naa te xam nga li fi jëlee jàpp. déet damay bañ rek xam nga rek nga waxtaanee ko keneen affaire bi kii rek. yow nag looy wax nii nag yow coota. damay waxtaan ak yow rek sama xarit nga. Ah, xam naa ne doo ko def dama lay dolli rek. Eh, yow soo dafa mel na ngay am xel ñaar ci man. déedéet waaye yow man nan laa lay mën a booleeg nit mu defaral li mu lay defar ba nuppi ah ba mu quitté ah lii am am. léegi nga bëgg man nak ma yor sama lamine di wax man duma koy yor làmmiñam di ngay ngay ni comme ça te ki genn genn gis nga genn gu ñak kersa gi mu fi génne yow ko li ma la wax ci señtu xana waxuma la ko won sëriñ amna na de sëriñ amna na de ma ne ko koy lamé da la da fekk ni japp la yu bu am xel ñaar ci man nak yow it nak waye de ah deureum dina dof de allo allo allo allo ma ma maa ngi lay dégg jabu eh, yow fat nga ne foo ne yow nit nga ah yow nit ñaa ngi lay wër fu nekk nit dugg na fa ah ñoo ngi déclaré ci rajo yi ci télé yi yow fan nga ne eh, yow kii kii lu may wax ni waxi waxi lan la eh waxuma lool damaa bëgg nga wax fan nga ne sa yaaya di di di di jooy rek kër gi ñëpp a ngi lay laajte ah yow situation yi métti yi tax na nga nga génn dem sa yoon xanaa booy génn booy dem nga wax fi nga ne mais kenn mënut a fexe ba xam fi nga ne eh dis-moi la vérité foo ne. ma ni fii daal moom yaay commandé fii moom loo fi wax moom mooy am loo fi bëggul du fi am. waaw bu dee man mii nag moom na sa xel dal nag yow wax dëgg yàlla man du ma nettali man sama lamine bi maa ko moom. man daal xam gi ma la ah, xam yéex a xam gi ma la yéex a xam laay réccu waaye ba ma la xamee ba tey lépp loo ma wax gis naa ko sama aajo faju na. yaa ma defal teranga. li ma defal la waaw li ma defal kun ko defal ku ne boo dee gor bu amee soxla yitte da nga ciy taxaw temb. Ah, waaw da nga ciy taxaw temb. da ngaa gore rek. yow daal nee la tànk man maa ngi fii ci kër gi bul am benn xel ñaar ci lenn problème boo mënti am dis ma kon jeex na dis ma ko maa ngeeg ñu saf sàpp ñoo xam ni mu yow kii gis nga mi mi am nga ko gën a saf seen cuq mi ku ci nekk dafa am lu muy liggéey ku ci nekk ak liggéeyam seen cuq mi na ni jingis jingis belende ah sim kamu hmm. koku koku daal xam nga nu ñuy def su ma lijjantee kiyam ba lépp demee boor nga yóbbu ci moom dërëm bëtam bu mu kenn hmm. Saya sama kër gi laa bëgg nga ñagal ma ko benn jigéen dootu fi dugg. justement justement benn jigéen dootu fi dugg loolu laa la doon bëgg wax. waaw bi moo gën a wóor. ñag bee gën kay. ñag bee gën a wóor ñag sa tool ba mu ñag ba nga xam ni benn serpent. Mhm. janax sa du ci dugg. kon jeex na mellifera lan koy ñage. kon jeex na am nga mellifera garab googu. Mhm. ma ne jana waxuma la janax jaan sax dara du ci dugg. waaw mais yow kii kii dafa dof wala lu ko dal doo wax eh jappu man la ci jëkkër wax ma waxi nit lan moy lan moy do wax fo fi nga ne yow lan la yow ah? da nga nar yak sa aduna ah soode mi da jall jar bisil ci kër gi la wax te nga wax sa position nak ñu xam fi nga ne parce que ñepp jaaxle nañu jommi nañu wa kii coupé ma kii kii waaw man waaw lii lan la xëy na bi di bu waat vocal boîte vocale. lan la yow yow lan lan laay communiqué yow li xew da nga koy yëgul nga ñëw say reetaan. déet maanaam damaa xam ne kat yenn saa yi da ngay am problème ba mujj ci ay ree da lay. ah yow xamoo problème bi maam yow ba jabu génne kër gi kañ la. ah fu nekk noo ko fay wër noo xam ba ba muñu mënuñoo fexe ba xam fi jabu ne. waaw dëgg la de. ah dëgg la de waaw ku nekk ak sa kaa yow sa problème jabu la waaye man sa problème kaaw la. ci kaaw ci lan. dara du roof. man de loolu laa bëgg. yow bu dee man nag na sa xel dal. na sa xel dal. waa lu mu wax ci kii bi desit bi. waaw ah, doon jëm nag de. ah lu ko bëgg xaalis falaa doon jëm moom moom moom moom quoi que deseel nga ko wecc itam. namat rek namat rek ma yóbbul ko ko. ndaxte moom xam nga ay mbiram dafa kii noonu muy kii noonu day suppiku ndaxte des fois day jékki-jékki ne tat. Hmm? jimbarang gin lay jékki-jékki xam xam nga ñoom ay fétiche ak yooyu la ñu yor. man fan yii damaa yorul dara di. ah gis nga situation fan yii damaa yorul dara. ah loolu moom soxla moom loolu noonu. waaye naa ko lijjanti. ah naa ko na. ci lu mu gën a gaawee. naa ko a gaawee. ndaxte ah. maa ngi déggante ak moom mu naan ma waa déchite ba man ko yow kooku bàyyi ko sama loxo man maa la booleeg moom kooku man wóolu naa ko. naa ko lijjanti dina ma jox xaalis bi dinaa ñëw ba ci yow jox la ko. kon baax ah. jàppale ma ci rek na ma muñal rek. taxaw ci tembe de naa ci taxaw. du li ma la doon wax yëpp gis nga ko. gis naa gis nga lépp. gis waaw kon kay looy neng ay neng neng kay fu mu toll nii moom sama xol sedd na bu jëree jaay sa or bii ah. jaay ko ñu jox ko weccitam dinaa ko def nag après ñax yooyu yëpp nag après la waaw mais kaw mi jublan gu bees jeeg affaire tria yu bees yi mu jël foo ko jëlee ah yéen nit day nekk ci lu sérieux nga may wax ay waxi kaaw kaaw lan la la triyaa bëgg naan ma ay triyaa mais mais kaaw bàyyi ba sa xew mi jub si mu ne ma aar ma cent dama ko bëgg a ndawtal dërëm kan kaaw te xam kaaw wala wax lool. moo ma ni aal ma cent mille damay ndawtal dërëm. man de kaaw mille francs joxuma ko ci sama xew mi léegi moom daf laa leb xaalis pour pour pour pour pour lii la ci sama ci sama xew. wax de dimbali ma foofu nga ni kaaw joxu la mille francs yow. téeméer daw taluma ko téeméer lu dul wax ju bëri kaaw kay xew maa jeex maa yëkkati vingt mille jox ko. allah akbar kaaw lu may lu may ndawtale lan la may ndawtale. ah moom sama xew mi lay taafontale. nga di kaaw ndawtalu la yow. ma kaaw sama xew bi mu jeexee maa yëkkati vingt mille yu ma ko may ne ko lii jël ko maa la ko jox kaaw du mille francs bu ma jox su dee nag loolu la la taafontale bu yeboo nga lijjanti sa xaalis. dërëm dërëm man tey laa waaru man tey laa jommi nit ki suspense bi ma def nii maanaam maa ngi mel man damaa jóge ci kaw daal. cent mille mu ni ma dërëm laay ndawtal jàppale ko ci xaw mi ndax ñun waa dëkk ba noonu la ñuy def bu amee kuy xaw dañuy jàppale kii jàppale kii ma ne ko loolu rafet na ak kaaw deew deelu gu mu ñëwee ci man lépp naan ma buggoon naa laa jox waaye xam nga dëkk ba la ma yoroon yóbbu na man a ko eh, man jéggal naa la yow man maa la war a jox dégg ba xew ba jeexee maa yëkkati vingt mille jox ko kaaw man kaaw cent mille gisuma ko du mille franc bu mu teg sama loxo xamal naa la ñaar de négociation laa jël boole leen teg leen ne le yi mu nii xamalu xew kaaw dama ko yóbbu fa mbaxana doone benn ma dee non non non déedéet non wuy ma déedéet wuy ma wuy da nga may déglu nag yooyu beneen situation lay indi ci kër gi noo ngi wax kii réer feeñagul nga bëgg fee indi ay yóbbu police jàppale ma rek te yàlla tax kaaw boo ko yóbbee police man ngay sonal léegi daal xam nga nu ñuy def waaw fan yi dafa xaw a dëgër ci man te laay mi xam nga ne daf maa dinaa jéem a seet nu ma waxtaanee moom ba jéem a jëli dara ci man. ah jéem a dénnee dara ci moom. Mm-hmm. waaw te am naa yaakaar sax ne tey. Mm-hmm. war naa jot dara. Ah. ndax benn ticket joué naa. ticket la. Euh, kii bi naar bi. Ah, maa ngi ci naar bi naaru poruñ bi waaw. Ah, te xam nga tey benn match moo am. waaw benn match moo am. waaw waaw jéem na maa wax sax ne ma naa ko jaay pour euh, cent cinquante mille ak yooyu waaye après li ma ciy am moo ëpp man ne duma ko jaay benn match bi naa ko naa ci kii rek naa ko gérer rek. déet déet déet déet soo de loolu wóorul. Mm. quoi que proposé na la cent cinquante tey ngaa rek. yii may am li may am mooy man xam naa affaire yi ni li may am moo ëpp cent cinquante mille naar bi dama koy dégg rek kon yow yaa ngi ci naar bi. maa ngi naar bi de sori naa ci waaye nag du bëgguma nit ñi xam nu mu demee de xam nga. Ah, ah, man de bu dee man nak moom. dugut lay def duma ci wax leen daal saa yu ma ko rek ñëw ñëw jox la noppi rek nga jël fanweeri junni yi dé bàyyi rek tey benn match am naa ko géré ñu match ci ah yàgg naa ci yàgg nga ci nii nari waaw nari nari ci sama natt yeeg avec yi yëpp ci naar bi laa koy jëlee ah. yàgg naa ci nari nga maa booleeg naar bi nag wax ah. nga di dugg di dugg di lu ne ma daj dimbali ma rek parce que man it coono bii ma ne rek daf maa doy sëkk. man ku ma warulul jàbb mii ba mu feeñ bul ma wax ay wax yóbbi nit police ak yooy kii boo ko yóbbee police kii boo ko yóbbee sonal ñu. waa léegi fenu mag yi mu yar nii fenu mag yi fenu mag yi pourquoi. waaw mais nii la ko yàlla bindee nii la ko yàlla bindee. Ah yow yaa koy comprendre fexe naxtaan ak moom ba jot sa xaalis mais boo fi waxee ay waxi yoon ay waxi police beneen détail nag muy ñëwaat ci kër gi ñëpp sonn. non man fi nii moom ngoon ma dem police Médina Fall ngoon. bu ma jógee police Médina Fall dem DN bu jógee dem dem arrondissement gaa gaa yëpp a ngi ma fi demee moom sama gaa yaa ngi fa wuy ma doo ma te yàlla tax arrondissement moom boo fay dugg ñu koy jàpp. falaa jëm arrondissement nga fa mooy ka fa ne daa amul caaxaan. falaa jëm ak moom de. kan ne arrondissement amul caaxaan xam naa ko. ah ah Adjida Ndiaye laa koy boole. yee at sori na. commissaire Fall bu ciy jot da koy jël si de koo xamul caaxaan moo tax nga war maa dimbali dimbali ma jàppale ma ci sama combat bii ma wër jabu mii mu jéem a feeñ ñu indi ko ci kër gi moo gën ngay wax ay waxi police mais sama xaalis nag waaw loolu nañ ko régler sama xaalis loolu naa ko régler léegi man bàyyi lool man naa ko régler ma bu dee jëbb moom réew mi kër gu ma fi dugg laaj fi information dinañu ma jëbb fii la ne wala fee la dem loolu moom taw ma mais mënu ma kaa booleeg stress xaalis stress xaalis bi génn ko teg ko ndale ñu lijjanti lii bu kaa bi de féetee bool. ñu door a dugg ci affaire xaalis. kon ma dox ci jëm. doxal ci jëm. ayca. xaaral ah kenn xamul lii la. yaa ngi naar. toog. waaw waaw man soxla woon naa la tuuti sax. waaw jël chaise bi. jàmm la. ba jàmmay kese. Hmm. xam nga man saa su ne maa ngi dox ci say mbir. la bëgg laa samp rek. Hmm. samp rek nga nekk aise blaise. <laughs> waaw aise blaise rek jàpp su ñam. Hmm. waaw euh, ci sëñ cuq de laa jóge léegi nii. sëñ cuq waaw. ba jàmm la. moom it ba ma la ko woon booleeg moom ba léegi daal dafa xër say mbir. dafa xër daa baax waaw toujours su ne mu ma naan lii mu ngi lay surveiller de très près di la xool di la xool. nee na ma nag nee na ma nag il foog nga dàbbali waaw foog nga dàbbali ndaxte mbir yi dafa xaw a doy waar day fanaanee xeex ba bët set na. waaye man sañ cukk ñëw na fi ba ba ma am lu ma ko yónnee. ah fi. ñëw na fi ba ma am lu ma ko yónnee lii nga ma wax loolu la ma wax. waaw man kay loolu la expliqué. ah am na lu ma ko yónnee de dëgg-dëgg nag. lim ma defal nag moom macha allah gis naa ko. te jaral na ma lu ne maa ngi gis moom. waaye nag chaque jour. Mhm. ah cent mille cent cinquante mille soixante mille. Mhm. ah loolu yoruma ko de. xam naa ne dalaa bëgg jàppale rek de. xam naa dalaa bëgg a jàppale rek. ma dëgg yàlla boobu ba léegi daal nee na ma soxna su baax nga ku baax nga ku am yëg-yëg. waaw loolu daal mu ma koy wax. ah nee na ma nag soo ko mënoon dàbb am loo tuut loo ko dàbbali rek bu ko defee am na lu mu lay waajal. Ah, man de bañu ma ko su ma ko yoree daal. Mhm. mën naa la ko jox. Mhm. wala moom ma yónnee ko ko. waaye fu mu tool nii bu ma ko ko yónnee léegi. Mhm. Euh, barki démb dong. matul matul matul trois jour xaw ma quatre jours. ngi naan na fan laay lijjantiwaatee loolu te jamono ji dafa métti xaalis amul. dëgg la xaalis amul ah. jamono ji dafa métti de. bilaay dafa métti. Ah, waaw li ma defal nag moom maa ngi koy sant di ko gërëm. Ah, ndax jàmm ji ma am moom. ci moom la jóge dëgg ginnaaw yàlla moo ma ko may. waaw waaye nag moom mhm. euh, euh, euh, sëñ. cuq seen cuq moom. Mm-hmm. ah rabam yi bëgg nañ xaalis de. Mm-hmm. rabam yi ah, bëgg nañ xaalis trop de xam nga lantinoor laa rek. waaw waaw waaw waaw dan ma kii yoon a xarit nga moom waaw waaw xam naa ne boo ko yoroon sax xam naa ne doo ñëw di ma ko laaj. waaw bu ma ko yoroon kay. nga xam ni moom lépp dëgg la. waaw waaw waaw amul solo dinaa ko expliquer loolu. waaw mu muñ rek jéem a néggandiku rek. waaw naa ci bàyyi xel situation yi décanté. Mm-hmm. rek di nga am loo def incha allah naa ci bàyyi xel waaw dinaa ko wax. bu ma lijjanti koo daal. rek dinaa la dinaa la ko def ba yóbbu. na soxna yow yal na la yàlla defal jàmm amiin amiin yàlla na fi yàgg te wér waaye amiin amiin jërëjëf kontaan naa ci yow de ah maa gën a kontaan dëgg yàlla kontaan naa ci yow maa ngi lay ñaanal saa su ne mhm. waaw di la ñaanal rek yàlla si jàmm yàgg yàlla si jàmm yàgg jërëjëf ci kër gi ba tey daal mhm. sama xol sedd na ci yow mhm, jërëjëf ah. waaw ndax taxaw nga ma ci biti taxaw nga ma ci biir c'est normal c'est ah, normal kon nag sant rek yaa ma fat kay hébergement di ma jox may lekk di naan ak tëdd ak lépp lu ne ah man kay nag yooyu lu ma la defal xeb naa ko. yaa ko moom du dëgg yaa ko moom yaa ko moom yàlla na sa jàmm yàgg. baax na dinaa ko expliquer. waaw expliquer ma ko rek dinaa ko expliquer baax na waaw jërëjëf mm, ko expliquer. jërëjëf incha baax na maa ngi àgg ci biir. waaw àggal ci biir noppaliku. jërëjëf àggal ci biir noppaliku waaw. ñun hmm. hmm. defe naa am na leneen loo leen bëgg man ngeen fi fekk sama aaja fajul amatuma dërëm ma jox kenn lu ma am sama bopp laa koy def jënd ay ginaar joñal sama àllaaji be Ya sama yaram bi kaas kaaw ah ah jógal yow dama la soxla ma ne dama la soxla don't know why. dafa liw damaa liw dafa sedd. waaw waaw. bëgguma ñaar dégg ñu. waaw. bëgguma ñett dégg ñu. waaw. si la damaa bëgg li nuy wax yow. waaw. ñu wax ko ci njëkk ak ak non violence ak ci fair play. waaw. si la. cas la lekk. eh déglu rek cat mi yë cas mi yëkkati xaalisam lebal la ko mu toll ci cent mille francs xaalis boobu laa bëgg nga yëkkatiwaat ko ci njëkk ak teraanga nga delloo ko xaalisam parce que nit kuy daan dooleel di néew di doole yorul dara dégg nga kafeem gee muy jaay ca la yaakaar di ca taaba taaba nit nag su goree ba lebal la xaalis war ngaa am ngor fayee fay ko mu ci topp di daw du dëgg du yoon damaa bëgg na nga fay ko xaalisam léegi léegi turam juróom ya man bi may leb xaalis cakas ci sutura laa ko leboon moo tax ma wax ak yow ci sutura déedéet man li ma jaaxal mooy cas lan moo tax mu wax la xaalis bi yow te ma mu nekk sama diggante ak moom si sutura parce que maay bàyyam fii man maay kilifaam fii maay bàyyam man maay maa ay responsabilité ci sama kër laa ko fat Ah. lepp lu ko métti man la koy wax man ma koy fajal. waaw dégg nga. waaw comme nak may bayam may cadeau mayor maa cadeau mayor leppam waaw man la waxal. waaw ta khalif bi dama bëgg nga fay ko ko ci ni wala ci nal parce que nak waaw khalif bi bis boko ko fayul. waaw la fassé ni yo police. <laughs> waaw lu leer ni mi de la. waaw te bu la yobé police. waaw ñaanu ma ndiek waaw. Ah. ñëwuma. waaw indiwuma añ. waaw sama yónnee ko. waaw te Ablaye it. waaw kàddoom du ko ci dugal. waaw yoonam du ci ne. Ah. kon nag bala noo dem ba yegg ci affaire police ak ah. di nga demam doo dem. Ah. fayal xaalis jàmm. jërëjëf. waaw jërëjëf. waaw jërëjëf. naa wax bi. cagas maa ko yoreel de. maa ko yoreel xaalis. c'est maa ko yoreel te bi ma ko yoreel man ak moom la mu lebal ma. d'accord naa waaye cagas. bu waxe waxi police ngani amulo si parole. ablay Ablaye amu si parole. Ah. léegi ngay wax ma lool. waaw léegi nga sañ wax ma lool. léegi nga ma mun a tax a wax ma lool yow nga xam ne avant ngay tax a njabu fu nekk dem naa lu nekk dugg naa si dem naa fu nekk sama we bii ba mu bi mu tegee ko ma dem hôpital yaa ma ko tax ma def ko. waaw wuy ma lu nekk def naa ko ndax yow. xaalis bi ah léegi mu bugg ma yóbbu police nga ne sa yoon. nekkul foofu xaalis bi nga koy leb da ngaa fen da ah. wax lu dul dëgg. waaw ah, lan laa wax parce que da ne ko. waaw lebal ma cent mille francs dama koy def ci xewu dërëm bi. waaw sama xew mille francs defoo ko. waaw sama xew dem na ba jeex tax sàkk maa yëkkati vingt mille franc jox la ko. waaw foo dugal xaalis ba. foo ko dugal. laajal ñoom Kaaw Bongo maan. di ah, ah. ñoom Kaaw Bongo maan bi mu fi ñëwee ah. man may yow li ma doon def si latéral gauche yi laa ko doon def si xew bi. waaw mënuloo ko gis. waaw mënuma koo gis. Ah, mënuloo ko gis. léegi nag na ma léegi comme yow yaa wax loolu ah léegi d'accord. na ma teg. na ma teg. jeex na na ma tëj loolu laa bëggoon na ma tëj léegi nag waaw na ma tëj comme nee nga na la tëj waaw man moom samay wax du ci bëri waaw ci kàttun yàlla mbaaxam su ma jógee léegi waaw moom dinaa ko wax mu dem ci commissaire Fall arrondissement mu dem dugal fa pelentam commissaire Fall la gën a sakk moo la gën a yegg du def vingt quatre heures te jël si fi nga toog xaaral ma woo commissaire Fall léegi hmm. woo commissaire Fall nay dem nay dem waaw ah, ah, ah. baax commissaire Fall du ma def salam du la def salaamaaleykum man waaw. yaa wax loolu maa ko wax. assumé nga Ou abou bu responsabilité. bu taxawee nga waxaat. Quoi yow may ma yow. yow nekkuloo nit sax. ah yow yow doo nit sax. yow lu ma lu may def yëpp cagas ca wax cent mille francs tax nga may wax lii cent mille francs tax nga may wax. wax mais bor la. waaw bu nekkee bor yow. li nga fay yow nga fayal ma ko bu ko amul nga fay ko yow. ko yaa xam. fayal xaalis nga fay ko yow. fayuma ko su ma ko amul nga fay ko. yor naa ko ay fayuma ko. loolu yaa yaa xam. waaw kay. sa yoon nekkul foofu bi mooy yow da ngaa desee des yow yow yow doo gor sax. waaw waaw. parce que ñàkk gore di dëgg-dëgg mën ta nga nekk ci kër gi waaw di fi añee di fi reeree di fi ndékkee di fi fanaan waaw lépp jóge ci sunu poos waaw jabu génn kër gi réer waaw depuis kenn xamul du tànk boo ci dox du làmmiñ boo ci wax du dara saa su ne ngay tëdd fii maag cas génn di wëri da ciy teg sa bët di ko dégg say nopp te jéemoo ci dara dara dara dara loolu nga xalaat rek ah. yow man damay li saxaar di xool dama xamul jabu da ngaa yaakaar ni dafa réer comme xale réerul comme xale dafa nekk si boppam may nekk di wax bu fekkee dangaa nam dangaa dangaa bugg a nampa yaa xam de waaye yow manati ngay nam manati ngay nam manati ngay nam doo ko gaaw gis de nabu dafa réer mel ni la fa des jours la fi mu ngi si boppam mu ngi def lu ko saf lu ko neex gàttal si ma woon fële man mu si man bu demee commissaire Fall du ma